ah man de jaaxle naa sama gargot bii ba ma ko ubbee ba tey taaruwaay beeg lépp man bu ma calculer calculer wu ma sax ñaar fukki dërëm ah. ah man jaaxle naa def chaque jour mënut a nekk feet nag fi mu nekk client bu fi ñëw war a lekk per ak doyen téye leen wax loo leen ba ñu naax fàttee fay te man li ma ci jaaxal duñ fàttee lekk mais dañuy fàttee fay. man sama xol bi dagg na de tey moom bu nekkutoon sama xarit bu baax bi sama yaay ji yaayu saali madame Amar barke tu Touba waalo dana ñaaw moo tax tey ma togg waaye nag tey kenn du lekk te génne woo. waaw waaw waaw mënuñoo bëree. am na tey njëkk ci a amati li comme ça. na waaw dama delloo moom nit du sottoo nit. booy mënuñoo ah, bëree. Poté naa def. Poté na nga def waaw na nga def. ça va. yaa ngi ci jàmm. daa taa jot. waaw ci nga booy bi ma jàppoon ci gannaaw loo yooyu na ci nga booy bi dama attention de. Ah. yaa comme mooy sens yow mi accident ma brigadier per man la naan doyen nga dama tegg sa loxo yaa ngi booy bi mais booy bi dama ko doon lekk de gis nga bi ma leen tiib tee booy bi doyen gis nga bi wax kat mooy dóor dee ma bàyyi dégg nga. ma la bàyyi ba nga gaañ ma yaay kan. booy door kay dooral booy waaye danga mën dem kaso de. lan mooy ndey li yooni booy nekk ci lamb ji ah amer de les gens yor seen mbuuci ndox yeeg bidon ndox yeeg. waaw mbuuci bon yi di ci jël di sànni mbër yi comme ça là. pour quelle raison ñu tak attention. man je vais y veiller danaa ci veiller bu baax a baax booy bu nekk damay sigilu. mooy coowal jàmbur loo fekkee nangu ko. per bay sa tàngoor wi nga àndal. ba doye bëgg ba kuy néewal a doole. waaw mais ba attention bëgg ba de. nga dal bëgg tolal ne Yékini wala nga tol ne Balla wala tol wala barki démb yaaw jaan yaaw yaaw gis nga barki démb ma tase ak moom ci croisement Thiaroye bi xaw nga ko rey benn maire di wax ak moom mu koy jéem a jaay naqari di leen ah. mais gis nga ma ne tiitee yaaw gis nga ma de yaaw da doon fort da doon waaye da ngay fay dangaa dof damay expliqué dangaa dof bay dóore damay expliqué ne doy man da nga ma rey jaalam xam nga leen di jaal xamoo ko. xaw ma ko bañ lay kay. waa ci kaar laa lang yaaw jàll ne ca kaar ba di dàq kaar bi pour jéem a tam leen mais xam nga nag laa def yaaw. waaw damaa ba yaaw ne tiim di bëgg a jàpp ci kaar bi gis nga bu ma ko dooree wér. waaw wat. yaa ngi yaa ngi leen ku ma teel. kan la ci doyen ci a wax. jaay jaal bii de. Ah. amul amul deux. musa am yaaw jaal un la mu ngi nii. sa mbel mbel ji nee naa la ba tay per wax du bari nanga koy supprimer dafa yëpp da doyen laa doon expliquer benn affaire bu ma daloon ca làmb ja barki dem léegi dama may ma àggale explication wuu la faal may ma may àggale da nga ma tooñ yow am nga sens am lu ma xool sax non non toogal rek. Amina ça va. waaw yow na nga def. ça va yaa ngi seetlu. ça va bien. ana waa kër gi. waaw koy jaal toogal. na nga def ça va. yaa ngi ci jàmm. oui sant yàlla bu baax. naka la. sant yàlla. waaw koy jaal. par may ma ma yàggal de may ma ma yàggal. na ngeen def sëñ yaa ngi ci jàmm. yow naka stade bi. non stade moom fan la maa ngi lay seetaan di kontaan lool ci yow. dëgg la dëgg kontaan trop. waa ñi xanaa stade lañ jógee ñoom seen i déguisement. da tey dañu civil woon quoi dama civil woon pour booy yi sànni xeer yi ak doj yi ah, man man day li ngay wax yépp yëguma ko. waaw waaye kañ nga mu yóbb. xam ga wax ji lan la Poté gis nga làmb dañ koo war a delloo fam ne woon yaawu jaala ngi nii champion bu mag la. yaa xaar ma defaral a yàq làmb mi ngi nii yaawu day bëri day daan waaye kenn mas a yëg yaawu moo yàq làmb wane na rëy ci yaawu. daa taa coono. waaw danaa la xamal benn affaire ci làmb Sénégal. xam ay mbër ci boppam yoo xam ne ñoom ñii yàq la boo yoree supporter doy boo yoree ay supporter muy sa fan club mu leer la ni fan club bi sa fan club la yow la ñuy bëgg yow la ñuy bëggee foo jëm ñu ànd ak yow foo demul sax ñu ñëw sa kër toog ñooñu nga leen a war a taaj nga wax leen dëgg ah bu na fonta ah. waaw te joxoñ bi sans bëri ji doo ko teere ngir yàlla li laay war a tooy ndax nen la ko teg ndax sama a tàng ba te mooy mbër la sa yaram bu tàngee ah. da nga koy yemale. mais yaaw ku jara roy la ah. non jàmbaar la. yaaw jàmbaar dëgg gi nii attention de am na fula ci boppam am na faayda ci boppam am na ngor ci boppam am na dignité ci boppam am na capacité ci boppam. yaaw xaaral ma wala benn technique du door ma yeb. per bu dee fii door ma door ma ko def leen nang rek. yéen a ngi bëgg a ëpp laa koy jàngal door ma ko. dama laa bëgg te kii bu la dalee nga dem sumpu ya tee ngaa yem. dooral doyen dama koy wan dama koy wan. ma dooral doyen taxawal ma taxawal taxawal taxawal weñ na wala déen di ngeen kaf bar kenn dee ci sama place bi ñu ni ma problème. te ma tudd woon nii nag dénk laa ko taxut. dama doon yaaw. ah da yaaw. làmb ji foog a. dafa jënd jàppale. lii xam nga. lu ma leen di bëgg a yëg. waaw fii du stade du salle de jeu. fii palaasu lekkukaay la te dafa war a génne xaalis seen i yëf nag gor gu ne da nga war a gore seen i yëf a ngi bëgg a ëpp boo dikkee def sa ay euh, lonet yu mel ni pono per lii nga xamante ne si mbang-mbangam bii xaw ma lu muy nurool mu bëgg maa reek yaawoog yii ki neeg bàlla gay gis nga fii lekkukaay la yaawu jaal mii amoo leen lu ngeen ko mën a waxal yaa ngi dégg kii ku ko mënatu la wax gàcce ngaalaama da nga ko war a seetaan ak jomam ak fullaam ak faydaam kay taxaw naa yaa ngi dégg li nga wax ni poté laay dëggan yaaw mi taxaw naa fee nar a rey tey taxaw naa fii ci boori Medina gi waaja ko den tooñ ba ko yaaw tëggémbeg tubaab ba fa taxawoon fa la jóge di wax olof ba léegi loolu moom moo ko def maa ko gis doon la sept mars doon sama xuwaan la woon mu ngoog xuwaan moomoo naa teg sa bët li booy bi wax xam naa fàtte nga ko dag yow ba pare nga waaw ñu ngi attention de a laa doon expliqué. waaw boo ko expliqué soo ko expliqué. non c'est ko wax ne ko. yaaw jaal ci boppam barki dee moo ñaay am na benn booy bu ko doon attaqué ci benn car rapide. bi yaaw téye booy bi mu ko ba taf ko ci moom bi ko yaaw dóore dënn bi damaa def ni kii dootul yaaw. Eh, waaw ndax kattan nga yaaw àndal foofu ak doole nga yaaw àndal foofu ak fit ma yaaw àndal foofu xaw ma yaaw woomu ci làmb ji. ter ter. yaaw ponkal nga de. a nekk ponkal. yaaw. may ma ñaaw moom ku lil xaq wa kaana mu ren père donte dangay faatu dëgg gi wax ko fii nga toog côté ngi nii nga naa yaawut ba nga ko jàppee la ba ko dóoree ba ko galajaanee ba nga ko teqee lépp yaawoo ngi taxaw maa ngi lay xool yaawoo ngi lay xool delloo buum te booy booy dara nee na moom moo tax ñu tuddee la yaawu jaar nee na sa bëñ yi moo wekki ñaar yi bay wekki wekki ba nga daw jaara taba taba

xam nga dafa am lu ma xool rek. doo yaa ngi dégg. bu baax non kii taxul mu de. mosuma ñàkk a dégg yow yaa tax. da te fu mu toll nii fu ma wéeru woon bu doon foofu. kon heure bi dama la yenn parce que dóor la suuf mbaa dafa lu métti seen ma ci yaaw seen ma ci amul jom mais dafa am lu ma xool non moom jom xëy mu gont mais dafa am lu ma xool nag ah, waaye yaaw nga baal ma te leer na mu leen xam naa ñëpp samay supporter lañu su ma la gaañee fii ñu ñëw xëy ñëw sama kër suba dama am gàcce. da ngay am gàcce gaa nga baal ma yaagu. waaw waaye yow sa gàllaaj daal mel ne du xaw a wàññi. ndax daal sa jël yi daal eh, yi ngay daan. Mm. ak yi ngay njëlloo léeg-léeg nga dala jaanu ñaan du defee ñu ni yaa wa daan wala kee daan téema laa boole suñ moo joxaane mu defal lay ñaan. ñaan. waaw non léegi moom kon kon léegi fu mu toll damay wàññi samay affaire quoi léegi ndaxte comme fu mu toll nii. da ngaa war a ma yaakaaroon. Mm-hmm. kilifa bu ma yaakaaroon néewtu fi ak waa kër bi néewtuñ fi. foog ma wàññi yéen sëriñ su bëree bëree bëree bëree bëree. yaa boole kër yaa ngi ko denc. waaw xanaa feet ba feet koy génne. feet ba feet laa koy génne. waaw yaaw yaa ay. yaaw bi dégg naa day nax sëriñ ci rek. ah non père yow tamit. war naa jox fukki junni. moom sax bu daanee du dem. moo yónnee yaaw dooree. waaw waaw dégg ma rek lu yëg. waaw lii moo ma ko ah, ah, yaa ko waxoon loolu. ah yàlla tere yow nga yaakaar ne daan li may daan gars yi nii nga yaakaar ne ak yaaw bu ñëw si biir géew yi noonu rek ñëw bëri la déedéet yaaw waaw xam nga kii fi ne ak aj ku teen lay bañ mm-hmm. fi mu ne li mu def ndéw lu ni ma kalaame la ko mm-hmm. moo tax muy sos waaye yow yaa ma waxoon yaaw mënta baax yaa ñama yàlla yaa ma ko ba waa yaaw mënta baax yaaw ma dana leer mun ma bàkku ma naar naar yaa ma ko wax nee na bàkku bi ngay bàkku bàkku yaa ñeme yàlla. donc booy gaynde. non eh, yaa ngi sosal doyen. boo ko xoolee xam nga ko wax doyen bi wax. doyen bi yaa ma ko wax. Ah, xam na ne yaa néew doole. léegi loolu dana leer. waaw ah, woy. yaa wax loolu man dana leer mënoo baax ndax yaa wax loolu. man waaw yaa yow it nag man. yow est-ce que doyen da nga ko xamee ci wax ma génne ñaari façon bàq yu bees. yu bees tax. ah. benn bi la ñu aj sa loxo di dem. déedéet voilà gis nga dèjà teg waay. gin teg gin teg yaaw gin gin ay waay doon ni taas gi taas gin waaw waaw ah jajajajajajajaas teg gin ay waay ah jajajajajajajaas teg gin ay waay ci bii côté ay waay ca bee côté ay waay ran gin tagang gin gin gin gin gang gang gang raas test test. yaaw. mënoo ba ko. yaaw yaa ngi ko woon dëgg. kan yow waaye mosuma daa wax loolu. bàyyi sa ñi ngay wax. père wuy ma li ma la ci dolli. mën naa bàkku mënuma bàkku. doyen yaa ngi togg jàmm. dëgg bu nga wane fii nekk. waaw. boobu neex na quoi mais yow da nga amoon problème mu ndig ndig. problème mu ndig problème mu ndig. man. déedéet comme booy def gin cag bi nii ni ngay def nii. Ah, waaw dama koy limité. fii amul kii bu day dagg fi dama koy limité. non yooyu ay fem la sax. ko war a yokk nag. muy lambee cosaani maam laa njagamaane maa faa maa ba nere ndiage yoo. <laughs> waaye yow loo jël ah, ban làkk la. damaa jël ci sénégalais bolo wolof ak inde. waaw père daf ko daf ko njaxas. père yow li ma leen laaj xanaa da nga daan woy si lamb ji. day day man lamb bi Sénégal yi toj naa ko. Ah? ma yëngal waay. fexe njaay faama fexaay faaxal li xalal laaye. rabu géejeeri fexe rabu géejeeri. Ah, yow mooy nag maa bëgg a niroo lekk sa bopp. waaw moom kay yaram a ma a a ma koo soxla ndax ndawal. <laughs> man damaa weer sama géej ku weer yaa moom. yow moom noonu rek. maa ngi ñëw. ma tane la ndax waxuma ba yàq. mbër mu fi ñëw rek nga nga nga yaa yaa ko yaa ngi ñëw. kon ma xaar la sa paa bi yaa ngi. xaar maa ngi la de. waaw per man yow rek laa fi yaakaar de. yaaw fayut fayul de. yenu ko. waaw yaaw fayut. waaw ko mu fay. li ma def yaaw fay. per yow laa fi yaakaar de. pour ma kër yaaw. waaw. doa ah, demal def yaaw mu fay. loolu kay wax ji jeex na. per te doori ba tax nan dem kar man dama gën waa ba per mais dama leen dama leen de te li ngeen fi lekk yëpp dama leen ko baaloon te man yow rek laa féete woo ndax xam naa ne fii yow yaay lijjanti lépp yow li nga bëgg mooy ma kar ko quoi waaw pour mu fay pour mu fay eh doye waaw boo mënta kar yaaw fourchette bi bu mu jàll kii mu des am naa lekk ko yow kii fayagul muy des ah sama yoon doy. xiif kat xamul xaar. téléphonel ma corbillard mu topp ma kariyaaw. auzu billaahi mina seytaani kii li ko yaaw wan. Eh, eh, yow lii la yaaw wan a ëpp lim ko wan. Pate xam nga lan la ah. doyen xanaa ba ngay xale da nga daan raxas ngénte doyen yow doo xeex doo xuloo. Poté. xool baaraam bi Poté. waa dégg nga ma ma wax ak yow. waaw waxal man. xam nga c'est la première fois ma ñëw ak yow. pour discuter ak yow ensemble. yow li ngay discuter ensemble. waaw Poté. gargot bi naan bees na taaru na tey di yàngi na waaye peut être njarte mi doxul de seetlu naa la. waa nu muy doxee su ngeen ñëwee bëgg maa rek wax yow ku desal nga sàqam mi takkal sa tuñ pepp ceeb mais du ma sa dox. dama mais il faut ngeen may dimbali. xam nga nu bëgg. loo bëgg Serigne Touré dégg la. baax na mën naa ñaan waaye ñaanam day retard naanam maanaam ñaanu andi feere lay ñaan dama laa bëgg a wutal. yow da nga am ñaanu en direct. Sëñ Mor Joxaane laa lay booleel. Ah. mu defal la ñaan goo xam ne direct bu ko defee lépp yi jar. lu tee mu ñaanal la nga mën a am loo fi jëndee. xam nga lu la lu la yàq. da ngay oqatu nii. déedéet ah boo pootee. pootee nag koy rus de. <laughs> man dama la jox cër mais gis naa la ngay oqatu. kuy wokkatoo kuy wokkatu daa bokk. léegi. <laughs> lenn nag laa la bëgg a xamal. waaw waaw. sëñ bi du leen jox téere jom yaag per ngeen takk ko wàññi waxte na ngoy fay. li ma nekkee metti na de. man damay dem xam nga lu la yàq ba nga Richmond jiisee ba senegal gépp monde entier ànd na naan Richmond jiis ba léegi da ngaa fuuy man nag. nga puuj say gémmiñ xoolal li ma tudd sa bosa ci gën a ndaw. ma ni Richmond jiis googu sax baaxut ni nga koy wax. Richmond jaas la. ma yéen. tey foofu la ko def mi ngeen foog ne tey nag jëlul lu bon wala yaawoo yóbbu seen fit ñii daal damaa yaakaar ni am na lu leen dal waa àddina nag man ci lii laay dund. waaw waaw.